Écoute sur RFM. jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërëjëf Yacine Pouy internet yi ak euh, auditeurs yi yéen a ngi ci seen journal des faits xalaas euh, ak euh, ni ñu tàmm di ànd ak yéen ànd ak suñu partenaire ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye ak euh, Passepartout Ndiaye ziaraat na la. jërëjëf Ababacar maa ngi lay delloo ziar gi bu baax a baax a baax maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu également Passepartout. Passe noo def. jaajëf sama waaj maa ngi lay nuyu bu baax. naka yeewu gi. sant bu baax. ñu may yeewoo mbaa noonu ngeen yeewoo. man moom kon d'habitude. yow noo yeewoo moitié yeewu de. sama yaram bi dafa fasu dañ dama mel ni bii kundóondóor dañ ko doon dóor kay. waaw waaw dañ la de damaa juum ci ni mu communiqué dëgg la de dañ ma doon dóor de. maanaam sama dóor yi démb yi ma sama dóor yi démb ba tey. comme fekk yow wulli ñun nag Ndiaye ñun nag Ndiaye eh, ñun nag ay jullit dëgg lañ. Mm, mm. waaw dañoo gëm yàlla. <laughs> moo tax ñoo nag bu ñu jàppee Angleterre ak ay Angleterre ak ay pomme de terre ñii ñii frite frite ah euh, ñii baxal baxal naan xale yi sax dañuy lekk purée yooyu yëpp ñu wax ko anglais yi toog rek jàpp seen ñàmbur. Njaay Angleterre seen championnat Njaay Angleterre li ñuy fay zori Njaay Angleterre ak seen i stade ñu xool ñun suñu bopp xool leen ñoom ne dañ leen di dóor. yàlla baax na de. xam nga lu tax démb ma am xolu muñ defet bi. Mm. benn booy moom doon nettali ma ne dañoo jàpp ko sàcc saako lingom ak ko sàcc saako koko <laughs> ñu ne ku nekk dañ lay forcer nga lekkaat bi nee na borom saako li bi di reetaan borom saako koko bi. daa fan la jëm. bu ñu xoolee ci Qatar mi organisé. dëgg la de. <laughs> teel ñibbi dëgg la de. ñu dóor trois ñun ñoo ko dóor trois kenn waxul. déedéet moom fu mu jaar ñu dóor ko. <laughs> Qatar moom fu mu jaar ñu dóor ko xam nga boo xoolee ci moom nag yu bëri da koy mën a. sax laay wax li Qatar investir Ndiaye ñun ñu jàpp ko ñun ñi nga xam ne. Euh, te ñëwoo rek. ñu ngi dem dem wuyu ji jàpp Qatar dóor ko trois kenn waxu ci. te ah. ñu trois ñu ñu bëgg a wax lu ñuy wax. Qatar li mu daj ci organisation bi Qatar ak li mu dégg ci organisation bi gis nga fa Qatar mujje génn daa ndegam moo mun a muñ loolu continuer di am courage wéyal organisation ba. yàlla baax na ah nañ dañoo xam ne doole doxul jàmm. parce que maa ngi la doon ziar boobu. maa ngi la delloo ziar bu baax ziar naa Ndiaye ziar auditeurs ak internet ñëpp di nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di masaw ñëpp. Ndiaye lu partenaire yi wax comme benn partenaire bi moom day ñibbi si tey. kooku an la Sénégal <laughs> xool yeneen partenaire rek lu ñu wax. sonn Ndiaye. <laughs> partenaire yi day abaa dañ koy door rek partenaire bi nga xamante ne ji ñoom saa su nekk ñi ngi euh, seet euh, li waa Sénégal bëgg ñu leen koy jox ni ñu ko bëggee mooy établissement waa kër Serigne Touba Fall et mhm. mooy borom vite fait yi nga xamante ne ji dañoo indi frotté vite fait indi pompe bu aay ci yoo ak mbóot ak weñ. ci vite fait indi nañu cuuraayu bant am na crème épilatoire bu ñu fi indi ak crème boo xamante ne ji ngir sedd bi mais également pâte dentifrice vite lañu naan lipo king ni mu amee savon king aloe vera ak anti acné noonu la amee lipo king nga xam ne fraise coco ak menthe yëpp ci biir ñi ngi waaj indi briquet vite fait allume gaz vite fait mouchoir de pose vite fait moom am na euh, ñi ko indi di établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère seeni numéro téléphone 77 555 11 11 77 806 15 19 partenaire beneen bu ñuy gunge ci xalaas moo di waa Optique Vision Plus Sénégal ni ma leen koy faral di waxee jamono ji euh, bañ faa dem wóorul ndax dañoo nekk ci promotion promotion boo xamante ne ji lépp lu ngeen bëgg ci lunette bëgg ko ci accessoire lunette bu ngeen fa demee da ngeen am ay wàññi yu toll ci 10 pour cent yu tàmbalee ci cent dem ba 40 pour cent ci njëg yi loolu la Optique Vision Plus Sénégal indi nee nañu nag euh, boutique yëpp nag muy bi nekk Dakar ci showroom bi bi nekk mbuur bi nekk euh, Touba bi nekk Kër Mbay ndëkk Kër Mbay Fall bi nekk Louga ak fi nga xam ne moo di Saint-Louis seen numéro téléphone di 33 821 54 57 33 821 54 57 ñu jeexalee ak million di leen fàttali ne promotion bi tàmbali na ci euh, prix téléphone yu million yi ak également tablet yu million yi mi yoon di Android bu baax mi di tablette yu baax euh, lépp loo soxla ci téléphone mi ngi ci téléphone yu euh, mi yi seen njëg yomb lool foo dem ci Sénégal nag dañ ko fay jaay mooy tablette yi di téléphone yi am na garantie douze mois muy tablette yi di téléphone yi mais également service après boo xamante ne ji leen rek moo ko fi moo ko fi bàyyi muy bu ngeen jëndee téléphone wala tablette mu yoon lu leen ci jaaxal boo leen ko yóbbulee ñu réglé la ko loolu moo loolu la mu yoon andi ñoo ñooy partenaires yi am na solo euh, Ndiaye bu ma la doon laaj dama lay laaj euh, suñu armée bi kan moo nekk ci kaw le haut commandant de la gendarmerie wala euh, ki nekk ci corniche bi xaw ma xaw ma PC xaw ma ACA xaw ma lan kan moo nekk ca kaw kaw suñu suñu armée bi. est-ce que amuti démembrement je pense militaire yeeg ki leen jiite gendarmerie ñëpp laa wax armée bi yëpp amul ku nekk ca kaw Macky Sall ah ma koy nekk ca kaw ah. waaw moom du woo procureur bi boole ko sëriñ si nga xam ni njaay dañuy yàqu xoolu sénégalais yi njaay sénégalais yi jooy démb ko ci laaj lu la jooyloo du la wax benn zone sëriñ si la lay wax génn naan ñu leen génne sax njaay li ma yoroon ci ay moyens yëpp man ak ak mes de moyens <laughs> Ah li ma yoroon ci mooy yëpp yii nen laa ko def. yii sarax formule nel charlatan yi. charlatan waaye waa ñii di wax nii rek. sax kenn leen wooye sax ay sëriñ ñii wax nii ci internet bi. ndax ñii kenn mënul ci ñoom procureur du woolu ñii vingt quatre heures. nu nu nu nu duñ leen def dara. nu entendre leen comme ni ñuy entendre. ñii waruñu leen def dara. sax dara lañ leen dul def sax ñu leen def dara. léegi suñu site internet yi nag du leen def dara. non loolu moom beneen domaine la mais sëriñ si taxaw naan Sénégal day gagné ak day perte duñ leen def dara. lu tax ñi leen di gëm ñoo tooñ seen bopp ñi leen di déglu ñoo tooñ seen bopp yàlla ma tax di wax ba léegi man munuma ne la sëriñ sàngam wax na sàngam. yow sa aqulay taala mosoo cee gëm benn sëriñ. barke maam Saliou Mbacke. Ndiaye kon yow yaa ma gën. ah xam nga booy dégg booy déglu ñëpp dégg lépp. Mm-hmm. man nag loolu laa doon def. Ndiaye de man sëriñ si confiance man day man man man man man man bokk. démb ni ma seeraanee mm, mas Angleterre man ba bi mas bi jeex maa naan dañuy agressé parce que man demi final Ndiaye yeeg man nit a ma woo nit sëriñ man moo ma woo man ne ma maam gànnu gànnu. gënu gënu. <coughs> gënu gënu dañuy yegg. te demi démb ba tey rek man maa koy woon nag waaw. au pire des cas. yaa ngi koy woo démb ba tey lu la wax. wuyuwul man kenn dama xalaat ma audio ko wala ma bàyyi ko noonu. non nañ ko audioondoo. ñii di ñii di génn ci site internet yi Aba di waat di wax lu leen neex ñoom ñëpp njaay ko ci fëggoon léegi yee ko na ko loo reeree dem du la ko wax dara xamuñu ko. mais ñun ñi leen di gëm la rek c'est-à-dire gis nga fi mu nekk nii. Aba ay kay yow kay comme gëmoo leen. non mais man su ma leen gëmul xëy na sama frère gëm na leen. xëy na sama sœur leen am na xam ne xëy na sama xarit gëm na leen mais nañ leen bàyyi di gëm. ma wax la ñaari mbir moo tax ñaar yu gën a dee fii la nit toog naan damay xar géej ak duma ko xar. Kunkande wax ñëpp xam ni ñëpp xam ni Kunkande mi xamul dara Kunkande moom munul dara sénégalais yi moom. te boo demee këram léegi léegi. fekk fa ay nit yu fa toog di xaar pour mu faj. leen ñu ay malien lañ. mais Kunkande <laughs> yi ñun sénégalais laa la wax nga wàccoon nañu ak moom Kunkande moom xoolal toog nga fii Aba. nit ñëw fii ñu ñu mu wér ni kii nii li muy def xamul ci dara li muy wax mënu ci dara nit ñëw fii ñu dénoncé ko fii du benn yoon du ñaar yoon te chaque jour boo xëyee këram fekk fa muy muy dóoraat ñeneen. man ma mënuñu maa nax ci seen biir kër yi di ma fa xaar ak yow man moom ci mas yi lañ mën a jàpp. non mais nañu bàyyi nag say ku ciy wax di wàcc ci barke Seydina Mouhamed xool sëriñ ba gën a tedd nga wàcc. mooy loolu xam ne te muy mujjee mooy ci gàcce rek. moo demoon ne mënuñu daal ñun nañu am fulay comme jaar nañ fii ak ñun jaaraat feek ñun jaaraat feek ñun bu xew-xew amatee buñ leen déglu lii xew suba yàllaa ko xam abaa yow da ngay football di dund football trois yi ñu jël suñu digg Angleterre nañ ne alhamdulilah. yoon la <laughs> yoon la de. maanaam xam naa euh, sa euh, Gareth Southgate moo am suñu keex sa rek. Ndiaye onze ya départ. set yëpp ay capitaine lañ du question suñu équipe bi dañoo mënta football de. du question amuñu entreneur de. am nañ yëpp. du question amuñu supporter de. du question amuñu méritu dem ci coupe du monde bi de. am nañ yëpp waaw waay. ni ñu Qatar euh, ni ñu ko jàppee ñun mën ko dóor ko. Hmm. noonu la ñu Angleterre jàppee mën ñu dóor ñu. ba ñu mujjee dem mondial foo ñu yem. ñu ngi woon ay. passe de poule match de poule. Angleterre fu mu yemoon. Ah? Angleterre avancé na ba demi finale. moo jël troisième place. troisième waaw ah dëgg la de. ah nañ waxante dëgg. Ndiaye Ndiaye Angleterre ñoo créé seen. football gis nga yenn nii rëcc la. Arabie Saoudite du dóor Argentine. rëcc de. bu ñu ko footballaatoon vingt fois. yu mag yi Ndiaye bu championnat bi gën a dem dañuy gën a mûr. te Arabie Ndiaye ba muy joué ak Argentine Argentine Issacher Chedde dañ doon xool naan naka lañ koy doxalee ba ñi rëcc leen waaye euh. équipe bu mag bu championnat bi dem hey vice champion d'Europe yaa ngi dégg. Angleterre Mohamed Coupe du monde ban année lañ ko créé. Angleterre vice champion d'Europe. Coupe du monde ban année lañ ko créé. jàppuma ko de. xam nga yàgg na. waaw Sénégal ñaata yoon fu mos dem da nga koy compter. troisième fois baa ngi ni. ñaar yoon yu mos a génn deuxième tour. Ah, bu nekkoon ay mbirum charlatan ki sëriñ ki toog di dugal chaque année Sénégal jël coupe du monde. Afrique sax wala beneen ana beneen <laughs> ana ko man la xolal. seen seen penalty daa gañe yii daa gañe fubal yii gañewul yii gañewul kenn Ndiaye. dañ dem ci xalaas gi. Moussa dañ muñ rek garaawul <laughs> Moussa Fall ba pare onze Angleterre bi may ma yeggali ci lii. set yii fay football capitaine lañ seen ay club. bu demee ba équipe bu Angleterre Grealish toog ci banc bi. Rashford toog ci banc bi. déedéet onze doon ci banc bi. ñoo gën a ay ñu doon football. ay Ndiaye yàlla suturaan nañu démb de. góolu Arsenal baa ngi ci bi. dañu doon la arrêté a dóor mais xanaa football amul ñu mën a la après nga ne nangu naa dóor nañ ma ñu arrêté. maa bokkoon bokkatuma. waaw amul daa a am di na am booy ay. kër yi lañ ñu ngi ko doon seet di ko seet di ko seet dañ ko gisul rek ñu ngi ko doon seet de dañ ko gisul rek. <laughs> kenn kenn rek moo rey am na kenn ku ne Ndiaye Angleterre su fekkee dañ ñeme na nañu ñuy def concours alxuraan. <laughs> ah foofu de kenn mënuñu fa moom ñoo ci champion du monde mais yàlla baax na yàlla da ngay mën fii ñu mën la fee. nañ dem Ndiaye <laughs> Moussa Fall. waaw Moussa Fall nee na dafa réeral passeport français am ak carte d'identité nationale. depuis jeudi vers dix heures ak midi. nee na mi ngi ko réeral diggante ambassade France ak gaaru PNR terre bi nekk fële ci Tëngéej. Hmm. ku ko gis na ko woo ci 77 763 62 15 wala 77 384 39 01 wala mu yóbbul ko ko fële ca ambassade bu France ndax dafa war a tukki le 14 décembre incha allah ku ko gis nag am na benn neexal bu lay xaar loolu musaa wax. Ndiame léegi lu xalaas wax. Ndiaye. Hmm. ba tey ci mbirum charlatan yi waa ji mooy seetaan. mënuñu dara de bu ñu mënoon faj sama man Ndiaye man damaa dër. kenn ko yàq. am problème mu wax bëgg wax gi gaaw. xam nga lu waay charlatan musuma proposé wax bu gaaw man. te loolu compliqué wu dégg naa lan moo koy faj ak mettiwul ak yooyu man charlatan balaa nga fi indi ko fexe nga lijjanti ma. xam nga xam nga plus compliqué ñu bari ci ñoom dañoo luye ba dañoo indi coupe kay nañu wut kër. ay amuñu dara. sa salle temps bu luy dafa am ci réew mi. <laughs> ñu dem salle temps dina luye. appartement bu meublé la ñuy luye nga xam ne ay meublé. salle temps ak luye. su internet yi dañ leen di fay. ñu ngay lu salle bi defaat fii nga ni. waa ji de Mohamed. Hmm. waa ji moo togg di seetaan Facebook xaw ma TikTok. gis ci benn waaye bu naan boo jëlee petit cola. Hmm. nga dëbb ko boole ko karité. nga diw ko ci say ci say ci say awra da koy yokk waaj dem def ko infecté yëf yi daa dellu. naa ci coupe du monde bi ba tey xam naa lii duma ci mën a participer. coupe de ca ngaabu dañoo am màggal le 10. ak gàmmu bi le 10 décembre. kon nan jox auditeurs yi. Mhm. mois d'août bi dama déggoon si tiktok bi am ku ñu expliqué quoi mu ni muy wax naan bricolage soo ko jëlee nga yeey ko nga boole ko ak nga denc ko trois jours soo ko diw sa kanam da ngay sa kanam bi na développé wu quoi léegi nag si laa ko utilisé ma def ko ay quelques jours après ma infecté wu sama kanam bi infecté wu woon après dem na hôpital benn médecin visite ma xool na ma yow amoo benn feebar ma dem pharmacie yéen gis pharmacien mu jox ma ay garab mais après amoo si benn résultat may si laa commencé waat gis sama kanam bi mi ngi changé di déformé wu di gën ndaw quoi day day ndaw bu xale dem naa sax ba léegi pour mu jug sax problème la te instant bi maa ngi am soxna dèjà bi presque un mois gisante wu ma ak moom te bientôt war naa dem si moom ma ñaan yàlla rek ku nga xamante ne nii xam na si dara euh, urologue wala sexo sexologue boo xamante ni dama mën a dimbali te yàlla rek tax ba ma mën a delluwaat sama activité parce que instant bi nii même pénis a a sax mën mën a xool sonn naa trop nag bëgg ndimbal tamit mooy dimbali ko yàlla rek tax awa bi dafay dem nooyo nooyo wàññeeku jeex dafay jeex tàkk mel luy rasta xalaas du du nga ah? xam nga xam nga nag góor ñi moom ñu bëri duñu wax hmm. moom ban petit cola la bi nit ñi di yee hmm. petit petit bu ndaw bi yenn saa koy boole karité nga def ko du def dara cest Njaay. karité gi nu yab nii ba ba ba Ndiaye lu jub ñu ne karité mën na ci man karité. daa bëri vertu na. mais Ndiaye ñun man mais Ndiaye Ndiaye ñun malien yi indiwuñu karité ba lu jub ñu ne karité mën na ci dara. waaw waaye lu bari mën na ci dara. judduwaale. karité mën na ci dara judduwaale moom moo tax nit ñi dañuy nax seen bopp rek am na loo xamante ne ci moom bu la ko nit waxee. Ndiaye ay judduwaale karité nii na rek la ji mën nii na rek. karité lu may karaw. karaw karaw gu bëri. foo ko diw karaw bëri moo fi ëpp Ndiaye. <laughs> ah baax na. Ndiaye xam nga xam nga contraire li jigéen ñi di def. Hmm. par exemple benn jigéen dem fële jël daqaar jël buy jël ndoxu géej jaxase ko nga diw ko sa yaram bi mu weex taal. Hmm. ngay xool sa der muy teggee ko. Hmm. ñu naan la maay diw maay diw nga jël di diw tax moom foo jëm ak moom cancer hôpital principal ngay mujjee wala femme. de la même manière ak góor ñi. ku ci moytuwul di la nangam diw ko sa nangam bii di la nangam def kon dafay yokk nangam du yokku dara dañ lay feebarloo donc. Ah, yéen yi sax góor da koo moomul yow kay <clears throat> ni da ngay gëm yàlla lu la yàlla wërsëgalee nga muñ ko. am na nag am espoir xam ne ah am espoir de. ah déet ah, am na yoo xamante ne yoo xam ne moom dangay ngay sonal sa bopp rek. bëgg am baat rek. léegi nag. am say principe. boo gisee moom mu wax ci. Mm-hmm. Euh, day bañ ñi ko dégg. Mm-hmm. wala ñi ñu koy digal. Mm-hmm. di ko def. xam nga moom jaar na fa. ak ku ko dimbali tam mu faj infection ak ku ko dimbale mu faj loolu moom na dem hôpital. mais ñi nga xam ne ñoo ngi koy dégg buñ leen ko masee digal muy lii muy leneen lu ñu leen wax ne boo ko boolee ak lii ak lii ak lii dalay defal lii moytu leen ko. Ah, baax yàllaay joxe mooy xañe mooy seet ki ko neex mu tibbal ko li ko neex. ku sa bool rëy. sante ko añal ba suur. Mm-hmm. ku sa bool tuuti. yamaleel sa xiif. nga mhm. lekk tuuti des a tuuti voilà mu jeex nag mhm. ñu jëm. léegi say principe nag. ak sa baat yii laa bëgg yi laa bañ bëgguma yii du ma def yii. yaay yooyu ah bu sa dépense matul aussi da nga xam sa commande yi am aba. rek hmm? la la xam ne ñaari mbir gis nga réew mi de mi ngi mi ngi jëm boor boo xamante ne bis bu ñu ko téyewul. fan man barki dem damaa gis gis naa koo xam ne bi ma ko mujjee gis ak léegi matul ay un mois deux mois yooyu noonu daanaka moo yaa seen position orienté wu ñu woon ma gis ko démb. presque romb na Ablaye Diop di dem jigéen la. xale yi ñuy def yëpp. ya ñuy diwoo ki ya ñuy utiliser. Ah, dara naturelu ci dañuy jékki-jékki ne faaj. bu da Ndiaye dama lay wax de gis nga Ndiaye yaa ngi gis par exemple fii ñu la indil yenn kaaw maladie fii dimbali leen ñu si nangam ak nangam yooyu kese la. wallaahi la yooyu doo ah, nga Ndiaye <laughs> assemblée gi lu ne xew na fi te xam nga ay man. yi fi ensemble daal njaay hmm. ma nga ensemble <laughs> daal peccum ndaw réew ma ngeen nekkal fa ndaw réew mi war ñoo xeexal suñu ay kii ak yooyu di te njaay loolu metti na yaa am na ko xam dafa kër man xoola man gëj naa seet ay film ñoom ay jët li jug naaw moo tax seetaan film lu lu bëri baaxul am na ñoo xam ensemble léegi boo seetaan film action am rek da ngay da ngay jug <laughs> réagir <laughs> loolu ñaaw na man gis naa ci législature bi ay député yoo xamante ne ji seen sérieux Hmm. seen compétence seen seen seen seen seen dayo ci réew mi hmm. su ma doonoon ñoom damay bàyyi waay ay député loolu ma tudd tur ñoo xamante xam nañ leen ñu am hmm. vécu ci réew mi lu ne ñu def ko fi di boromi xam-xam fu ñu taxaw ñu naw leen ñu leen tudd di tudd ràkkaay be waay d'accord naa de assemblée bi nar a gën a yées ci réew mi xam nga ñuy wax yi wees ak yi jàll ak yi ñëwagul mais buñ moytuwul bii la nara a doon. waaw parce que bii li fa xew ci ay buzz yëpp ay violence la wala insolence. wala ah, wala escroquerie. am fote wuñ fa benn projet bu génn ba am coow ñu ne li utile na pour réew mi. li fay génn yëpp mooy tey ministre ya fa jaar yëpp bari na ñoo xam ne boo laajee sénégalais yi. ministre sàngam ban budget la am. duñ la ko wax. Mhm, mhm. te loolu lañ gën a intéressé. bari na fay député yu toog ba jóg ñu votel ministre budget am. duñ xam duñ ko xam wallaay te loolu ñu gën a. intéressé jàpp mooy saaga fii xastante fii dóorante fii weqante fii sànnante chaise fii loolu nag buñ demee ba assemblée tollu noonu. politicien Ndiaye politicien xam nga loolu bu amee souvent dañuy dañuy dem jël ay image quoi naan assemblée bu Koweït assemblée bu France assemblée fépp am xeex mhm. c'est-à-dire. lu ñu bëgg gëmloo Sénégal mooy. Mm-hmm, mm-hmm. lu bon lu am rek ñu ne am na fële moo tax mu am fii. Mm-hmm. mais c'est pas possible nañ jéem def lu baax. cest à lu bon kenn du ko roy. nañu waxante dëgg c'est pas parce que dafa am fële war këdd ay jigéen këdd. Hmm? amee ah, du ñoo leen da koo këdd. këdd rëng këdd ba xalangu. këdd. <laughs> Ndiaye hmm? Ndiaye këdd jigéen <laughs> Ndiaye balaa may ñëw ci viol bi am Tamba. man de am na benn film bu dama cee këdd mais dootuma ko def film la woon. <laughs> dootuma ko defati mukk balaa ma ciy ñëw. ndaw si defam am lu ko doy soxla moom tamit. ndaw si doom bu jigéen la am. Mhm. nee na mi ngi tolloon ci jamono yi ñu koy def mbir mii ay trois ans quatre ans la amoon. daan xëy liggéey bàyyi ko ci kër gi. frère moom. Mhm. ñëw daan fooyantoo xale bi. ba nekkul di ko saay saaye. di ko saay saaye. loolu du wax ji de bi ko ndaw si découvrir boo yóbbu ko ñu ne ko kat kii li ko dal nii dañ ko koo def parce que gis na ay gaañ-gaañ ci kanamu xale bi moom mu ñëw menacé xale ba mu wax ne ko frère bi la demul ci yoon nag waaye menacé na frère ba frère bàyyi na ko mais xam li problème bi mhm. xale bi njaay dafa commencé nee na fu mu toogee rek di di fooy boppam xale bu jigéen bi waaw la la am ñu nekk ay quatre quatre ans la am. waaw genre nii nii mais bi ñu ko koy def ay quatre ans la amoon. ah ok ok mais léegi nag commencé na màgg léegi. Hmm. mais leen daal fu xale bi toog moom dafa seetlu ne day fooy boppam. xam nga am na lu xew Côte d'Ivoire yëngal àdduna bi mais yi xew ci réew mi war nañ Côte d'Ivoire benn colonel. Hmm. moo amoon jabar tàggook moom ñu am ay doom mu amee gardu xale yi di saay saaye xale yi. Eh. ba yëf siiw. femme bi nag mi ngi daw fu nekk pour bëgg ñu dimbale ko mi ngi interpellé ku nekk. Côte mm. d'Ivoire xam nga loolu la àdduna bi di waxtaanee jamono ji. Mm. mais xoolal yi xew ci réew mi xoolal yi xew senegal yu gën a garaaw senegal njaay Ndiaye. Ndiaye dañoo noppi. kan la ñuy déglu ne ndaw si. benn problème kese laa am muy sama doom bu jigéen. bu te bu ma xëyoon dama doon bàyyi sama doom bu jigéen. boobu ñu am trois ans trois ans quatre ans yooyu mu xëyoon fa mu bàyyi suñu kër man man dama xëy dem dem di liggéey nekk euh, mu ko bàyyi suñ suñu kër sama rakk bu góor bi da doon jàngi wàcc man maa ngi doon wàcc ay ay dix huit heures doon wàcc dix neuf heures bu ma bu ma kii bu wàccee di jël sama doom jigéen ko xaw xaw xamul dara ay trois ans yooyu bu ñëwee suñu ko jël section bi ko foowee di ko fooyee ba benn ba benn jour jour boobu liggéeyuma ma xëy nekk sama doom bi kaay ma sam ma sam ko toxe mu wax ma mun ma sama fii day métti man ko wan may foofu mën na ko xaaxal si laa daw gaa profité yóbbu ko si si hôpital ñu xool ko sartan bi xool ko na ma kii dafa ay ay tuuti blessure te lii xale bi mënu ko mënu ko def boppam dañ ko koo def enquête ko mu ne si la wax ne lijaayam sama sama rakk bu guur moom moo ma ko doon def mais heureusement yegg yeggu si kawam mais boobu ba tey sama doom ci wow dafa des si bopp bi moom kay surtout bu bruit bi fu mu day day day faral di foowee bu ko même benn jour maa ngi toog si maa ngi togg bett ko si saaba mu muy mu jël waxam di ko di ko di ko foowee foowee di ko foowee di def comme comme di ko def daal duur naa ko si guddi duur naa ko si bëccëg mais te wax bàyyi ko même tëddee guddi day xam mu nagaw di faa sax du ma nagaw mu tiif mu koy xool gis ko mu jël waxam di ko def def di di ko foowee wutal naa ko ay ñaam dem naa fu nekk wutal ko ay ñaam pour rek pour xel bi génn si wow ndax te mu màgg jëf yi jëf yi def ko toog jëf yi jàpp ko nekk mag yoo xam ne dañu téye seen bopp man rek mu bëggoon rek ku si dimbali bëgg naa ku ma si dimbali ku ma si jàpp bu baax wala que ça soit ku ma dimbali si ba sama doom bi bàyyi nii li mu def nii ku ma dimbali rek te yàlla tax. nga dimbali ma si boobu ndax xale bi bu baax man sama frère bi moom dama ko menacé fan yooyu ñoom ay quatorze ans yooyu quinze ans moom dama ko menacé ma woo ko ne ko bu amatee naa naa la yóbbu si yoon pour saa la yóbbu ñu ma wax ko sama yaay mais mais boobu ba léegi nag boobu ba léegi moom kiiwaatu ko defaatu ko te man boobu ba léegi tamit dama dama jël samay samay samay responsabilité dama jël sama doom yóbbu ko jardin fay yendu sax faa ko yóbbu boobu ñoom ay trois ans yóbbu ko jardin mu fay yendu xalaas hmm. ku am doom ju jigéen deel waxtaan ak moom ah, na ku am doom ju jigéen bul ko dénkaane foo nekk na fa nekk xam nga misaal mi mën naa bañ a sori ndax kenn ku nekk boo dee jigéen am na foo jot a jaar. Hmm. yàlla def nga mucc wala nga bañ a mucc. mais lu bon bon bon bon moom jot ngaa dund pexem Mhm. ku lay jéem a saay-saay waaw ngay jigéen xam loolu chaque jour ngay dégg rajo ak télé yeeg journaux yi liñ ciy wax nga am doom bu jigéen mhm. lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti dee ko bàyyi xel lu mu nekk nekk nekk mag dee ko bàyyi xel mhm. mais xam nga ne yii te yi bari na fi dépasse <laughs> dëgg man la njaay Sénégal ñi waxul ñi ëpp ñu wax xam nga Koungheul lu fa xew benn paa bu am ñaari jabar moo bàyyi ba jabar yi mu profité violé benn xale bu jigéen bu am 15 ans. Mhm. xam nga bañ ko laajee tribunal li mu joxe version xam nga lan la wax xam nga lan la wax ci kanamu juge yi. mu wax. <laughs> mu ne su ko wax ci rajo bàyyi bañ kenn. non mais mais xoolal rek. <laughs> non nee na nee dafa génnoon di tuuri ndox non non. waaw dimbali ma rek nga wóor ko rek. <laughs> wala Ndiaye non mais il faut nga wóor ko parce que man ak auditeurs yi. am na ñoo xam ni waaw léegi euh, nañu jënd histoire bi nañu jënd journal observateur bu tey. bind nañ ko ca mais man mënuma la ko wax xanaa xanaa paas wax ko. moom daal nee na daal accidentellement dafa demoon di saw daal waaye accidentellement daal gis na boppam ci kaw ndaw si. waaw pour nga mën a comprendre noonu pour le moment fu ñu dem feneen. lan la xale bi dafa soloon baax lan la xale bi dafa soloon baax. c'est que nag man Ndiaye non mais ci wax ji nag ci wax ji nag Ndiaye Ndiaye ci wax ji nag ci ko waxee boo ko dégloo dangay ngay da ngay xalaat ni am na tuuti mystique parce que xale bi moom nee na yeewu na ba sentir ne waa mi ngi ci kawam mais bi waa ji tegee loxoom ci kanamam dafa nelawaat donc moment bi mu yeewoo ci la gis ni egg nañ ci kawam ñu dem ci yoon da caa jàll ëmb tamit nag daal mm-hmm. amul dafa njëkkoon weddi mais après mu moom daal dafa génnoon waaye daal xamu daal mu def loolu am na paa yu ko mën. yu ko. raay mu nelaw la tudd raay mu nelaw moom mooy def sa kanam nii nga raay mu nelaw la tudd. am na de. da nga ko gis. raay mu nelaw non dama koy dégg ci sëriñ si. seen <laughs> ah. ñu ne ci internet bi. c'est mais c'est grave Ndiaye. c'est que dañoo nekk ci réew moo xam ni genre je pense que ku ñu fekk ci ngay def loolu kenn warulaa baal. parce que réew mu am ay mag yu conscient am ay magum jëmm ñoo xam ni mën nañoo wéet. def mm. lu leen neex yàlla mooy xam ki mu war a baal mu baal la ki mu war a bindal. bàkkaar mu bindee la bàkkaar mais maa tey weesuwul mag tiim xale di ci def naka sudul noonu te bàyyi say morom yi mag ne ci réew mi ah ah man dama am benn question bu may posé Ndiaye hmm. xale bu am deux ans wala trois ans ponkulum magum góor maanaam lan la yëg ci moom dañ ko warul yóbbu ci yoon sax wala ñu ko yóbbu police dañ ko ah? war a lijjanti loolu koo koy posé non laaju ma la ko laaju ma ko damay laaj en fait damay laaj de façon générale moom weesuwul loolu moom nga laaj damay laaj de façon générale en fait c'est-à-dire xale xale bu am trois ans la trois ans ko xam ne maanaam su bàyyee couche sax tax koo yàgg noonu maanaam góor gu ne ling mooy bon lan la yëg ci moom bon gis nga gis nga bu ñu bàyyiwul xale bu ndaw ñu naan ko diwee sa chéri magum jëmm fu mu fekk gone uuf ko nañuy ñaw njoxtu ci ñaar yi dëgg la xale bu ndaw nga naan ko diwee sa chéri rek diw laa noob ak takk naa ci kii mors man takk ca. yóbbul xale yi bu la neexee dem jëndal leen ay. bon nañu bàyyi nañu bàyyi buñ ko rusee nit seen doom bu jigéen. bu leen nangu góor di ko uuf. ku dul baayam. dëgg la bu nitee jigéen dañ koy protéger de passes. bien sûr. Ah, ay trésor la te bàyyi itam di yónnee seen doomi jigéen ñu leen di ñaani ay weccat ak di yónni seen nijaay ay mu jox la 1000 francs yónni sax yenn yónnante yi yenn yónni yenn yónni yi sax moo wóorul c'est que gis nga njaay am réew buñ ci tolloo foo xam ni li fi ëpp ci mooy li nga xam lu yées la li fi gën a ëpp mooy daa xam dafa bon fa ñu protéger xale yi buñ demee ba ñu bari di def jëfi mala di comporté wu comme ay mala ah ñuy nag dañuy mel ne comme ay sàmm mala yi sax léegi tàyyi nañu léegi fuñ jëm fi Amazonie la njaay kër gën a cappaduwaa la ñuy commencé tey bi ñu doon comment bi ñu doon expliqué fi vendredi. mooy loolu lëj na de. trop. xoolal lii baal leen ma waay yére bu bees la. fàtte dagg étiquette bi. wuy ma Ndiaye. na na nañ déglu premier partie bi. maa ngi jégalu ayca. jox ñu. problème bi ma am nag maa ngi ko amee. ak benn waay bu tudd Saali doon liggéey impôt et domaine bu Bourguiba léegi problème bi ñu am mooy ñun dañ am benn terrain boo xamee ni sii ñu ngi ñu ko jaay 1994 ku ñuy wax Pa Amadou Diallo dëkk Derkele moom moo ko jëndoon ci Salif jaayaat ko ku ñuy wax colonel Momar Aram Thioune bi mu ko ko jaayee léegi nag ñun ñu bëgg kër gi colonel Momar Aram Thioune jaay nu ko mais bi mu ñu koy jaay dafa woo Salif Sall mu taxaw parce que kër gi kenn miite wu ko woon lépp mi ngi woon ci turu Salif Sall biñ bokkee toog Salif Salif Sall moo defar këyit bi signé ko Momar Aram Thioune jébbal ñu suñuy këyit mais en tout cas daal ci Salif Sall moom jëli nañ ko mu ñëw toog defar këyit yi ñu jébbal ñu suñuy këyit terrain boobu nag ñun dëkk nañ ci cent depuis 1994 ñu dem ba mu yàgg këyit yooyu sama ndigaay denc bi mu ko jëlee da ko dencoon léegi denc boobu mu ko dencoon nag bi muy dem France di dem di faju ji dafa jëloon këyit yi jox ko sama yaay ni ko denc ko léegi bi ko sama yaay dencee ba mu def ay at léegi nag waa impôt yi commencé woon di joxe ay impôt yu ñu waroon a fay léegi sama frère bi après léegi wax sama yaay ni ko da ngay ko a fay ak yu mel noonu impôt léegi bi nga ko génnee ko daal ni ko ah, ko sa tur en même temps am na tamit bu ko ci mun ko ah seen digaay nii la ma ko joxe woon ni ma denc ko bu baax parce que ay xelee ko moom bu fi kenn ñëw wala kenn wax ci dara ba nga génne ko léegi nag comme ñun ñoo ko soxla moom maire bi am na droit jox ñu ko ñu xool ko bi ñu ko xoolee xam ni kër gi kenn niite wuñ ko acte de boobu gisatu ñu ko ñu woo sama ndiyaay wax ko ko sama ndiyaay li mu wax mooy këyit yi dara manqué wu ci woon lépp a ngi fi woon kon vérifié waat leen bu baax ñu vérifié bu baax gisuñu ko ñu woo ko téléphone wax ko mu ni ko ne loolu man jaaxal na ma parce que papier dara manqué wu ci woon léegi nag sama frère bi xool ni comme waa ji agent impôt domaine la mu dem laajte impôt domaine Bourguiba laajte ba muy monsieur Salif Sall léegi nag bi mu ko gisee mu xamal ko ni ko ñun de dafa am benn terrain boo ñu jaayoon léegi nag acte de wante bi moom la lañ gisul mu toog lu yàgg daal ni ko ah loolu kon yàgg na toog toog toog ba mu yàgg mun ko léegi da ngay dem fii ay quelques jours nga dellusiwaat fi ma xool sama frère bi delluwaat fa mu xamal ko ni ko léegi effectivement gis naa affaire bi ne loolu dafa yàgg léegi est-ce am nga mag mun ko effectivement mun ko àndal ak sa mag nga ñëw léegi ma àndee ak moom ñëw moom lim ñu xamal mooy effectivement li amoon na mais terrain bi dafa yàgg li ma ko jaaye woon du dara mun ko effectivement yow yaa nu ko jaayoon mu ni waaw d'accord ak ñun ci loolu mais nag acte de vente bi pour ma defaraat ko foog ñu jox ko 5 millions parce que foofu dafa am valeur léegi maanaam moom mi jaayoon seen nijaay terrain bi da ngeen a dellu ci moom parce que gisu leen acte de vente pour mu defal leen beneen nag ngeen mën a compléter seen ay dossier voilà noonu lañ def delluwaat ci moom pour ñu mën a compléter suñuy dossier loolu nag ci lañu waxee ni nag léegi foog ñu jox ko 5 millions pour mu defaraatal ñu beneen ñun ko mais ñun 5 millions yun la jox amuñu ko parce que yow yaanu jaayoon ñun ku ñu dimbali ñu jotaa suñu ak devant lañ bëgg moom mu xamal ñu ni daal loolu moom il faut ñu toppatoo ko jox ko parce que fee dafa am valeur ñu nekk lu discuter ak moom ñooñu d'accord ñu ñu dem ay ci moom mu daal ne léegi xam nu ngeen def léegi dañuy dem ngeen wan ma kër gi ma xool ko sax parce que man foofu xamatuma nan la demee léegi nag ñu ànd ak moom ñoo ko kër gi gi ngi nekk Padoa Builders ci impôt yi la bokk quoi impôt impôt Padoa Builders yi foofu la kër gi nekk léegi nag bi nga xamee ne ñëw na xool kër gi daal di delluwaat yabalaat na fa benn waaye mu ñëw mesure kër gi natt affaire yooyu ñu ñëw laaj ko lu xew mu ne man dama leen a jàppale ci affaire boobu léegi bi mu paree ci loolu ñu ñëw toogaat ak moom mu xamal ñu ni fee daal ni ma ko gisee man maa ngi doon laaj 5 millions mais léegi 10 millions laay laaj parce que fee dafa am valeur léegi ñun ko nag 10 millions mu am naa beneen solution bu ma leen mën a conseillé ñun ko ban mu ni li ma xam ne daal mën naa koo def mooy léegi yéen da ngeen di ñëw ñu bokk toog jaay kër gi bu buñ ko jaayee ngeen jël moitié bi ma jël moitié bi loolu suba suba lañ koy lañ ci gën a xuus ne nga problème de waaw ah. danañ eh, bàyyi ba suba dégg Ablaye Diop nee na yow dafa am benn waay bu fàtte woon hmm. heure bi jot na de 77 157 17 17 numéro xalaas